sant leen gërëm leen bu baax a baax ci tàmm geeg safoo gi ci Sen TV chaîne leader mbokk ya xarit yi dal na jàmm ci seen émission seen show di ñetteelu numéro bu ay bés bile ñoo mbégte saa su ne ak nu nu koy àndal dalal suñuy gan waxtaanee tolluwaayu réew mi ak surtout actualité tey nag am na nu mbégte dalal fii euh, madame le maire de Dakar Soham Wardini Euh, di it euh, candidate à sa propre succession ci ville bu Dakar xam naa dinañ ci euh, gën a ñëw gën ko xóotal yaatal ko ñu ngi lay nuyu bu baax a baax madame le maire di am mbégte dalal la ci seen TV rawatina seen show. jërëjëf. Mhm. Mhm. Mhm. ci ah, di leen nuyu bu baax yéen ñi nga xam ne yéen laa seqal plateau bi. di nuyu seen président directeur général. Mm-hmm. ah di nuyu itam téléspectateur yëpp di leen wax ne bég naa lool bi ma fi ñëwee ndax nag. Mm-hmm. damay suivre toujours seen émission bi. Mm. jërëjëf jërëjëf euh, kon madame le maire euh, ñun itam ba am na lu mbégte dalal la te di la gërëm bu baax baax ci disponibilité bi mbokk yi seen émission seen show du ñu ci wet benn yoon dina ci ànd ak Ndeye Deme Ndaw ak Fatam. ñu tàmbali waxtaan bi madame le maire euh, Soham Wardini euh, première femme maire de Dakar euh, mooy laaj bu njëkk bu ma la am envie laaj la lan la lay inspiré ndax bëri na ci ay sources ay soxti mu mel ni déclic la ci yow ngay inciter au femmes justement ci ñuy dem au devant de la scène mën a nekk ci dans des instances de décision boo déggee ñu naan la yaay première femme maire de Dakar lan la lay inspiré. honneur la d'abord pour man. Mm-hmm. ndax nag euh, depuis que le Sénégal indépendant. Mhm. bi ñu amee indépendance ba léegi. Mhm. ay góor rek ñoo nekkoon maire de Dakar. Mhm. kon bu fekkee ne man tey nekk naa maire de Dakar yaakaar naa ne euh, teral la bu ñu teral jigéenu Sénégal yépp te bi ma ko nekkee itam dama ne. danaa góor góorgóorlu bu baax. ndax bu ñu nee maire Dakar jigéen la. war naa marqué sama passage ci ville de Dakar. war bu ëllëgee ak suba ma war a mën a nekk un modèle boo xam ne jigéen ñi ñëpp samay rakk samay doom mm-hmm. dana nekk bunt boo xam ne ñoom war na la war naa nekk une source d'inspiration pour ñoom mm-hmm. pour ñoom itam ëllëg ak si biir ñu war a aspirer à ce poste de responsabilité mm-hmm. xam ngeen ne jigéen ñi bariwuñ ci boppu maire yi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 intervention ministre boobu moo facilité sama première audience avec le président de la République comment est-ce que un maire d'une capital peut ne pas parler avec l'État centrale xanaa man bëgguma liggéey te nag ñiy wax loolu yépp man de moom prédécesseur mosuma tere ma ma wax ak président de la République parce que xam na ne bu ma waxul ak moom duma ma liggéey pourquoi loolu kenn mënuma koo tere tey suba gannaaw suba dans l'avenir je continuerai ak collaborer te man président laa bu ma sañoon sax weer bu nekk mu recevoir. alors tey jii euh, dañ la woon ginnaaw. waaw nga doon àndal. ñëpp yaakaar ni ñoom yow la ñuy tabb à la dernière minute.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 ay nit ñu bari ñëw nañ di ma laaj sa plan B ma ne ko awma ko. Mhm. parce que man je ne voulais pas être la première à à à, à mhm. loolu laa doon bañ.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 yore doole. Mm-hmm. moo war a njëkk a seddal. Mm-hmm. oo nit ñi ci jàmm mm-hmm. alors.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 jigéen buñ ko violé neexu ko mhm. neexu ko donc loolu bu amee wax dëgg yàlla fan sanction yu sévère lañu war a def mhm. ndax viol yooyu fois dañ ciy rey nit sax absolument mhm. man am na ci benn discours bu ma doon wax dama doon plaider sax naan sanction yi dañ koo war a gën a dëgëral ndax lii bu continuer ah ñun ñoo ciy gën a lor surtout jigéen ñi gis nga euh, période bi may wax pré-électoral may wax waxu violence bu ñu gaawul taxaw ci mhm. wax ci ah dana metti leadership féminin leadership féminin bi nag ñun laaj mairie yi euh, am nañu satisfaction mais am na lu bari lu des ak des femmes seen taxawaay dañ liggéey bu bari surtout au niveau de la ville mhm. ñun am na sax benn programme boo xam ne suñ centre de formation bi dafa bëgg a dem ci lycée yi mhm. former les filles en leadership féminin déjà parce que lu ñu remarqué mooy jigéen ñi même boo xoolee ci école yi elles sont toujours les premières tout Elles sont intelligentes, elles sont excellentes, elles travaillent très bien à l'école. Mm -hmm. Ces jeunes filles-là, si on leur au leadership, madame la maire li ñu lay falaat dafa jeex li li ñu dese bëriwul bëggoon nañu bëggoon nañu peut-être dugg ci yenn question mais euh, euh, li ma bëgg a xam moom mooy mhm. euh, gis nañu coalition Yewwi Askan Wi madame la maire mënuñu ko bañ a tudd na parce que da ngay jàkkaarloog Abdoulaye Diouf Sarr jàkkaarloog Barthélémy Doudou Wade mm. comme ni nga koy waxee euh, nga basé ko ci góor ak jigéen la yow yaa ciy jigéen loolu la ñu gis ne moom moom nga def sa sa thème de campagne en quelque sorte <laughs> même si dugaguñ ci mais gis nañu investiture bu coalition Yewwi Askan Wi une forte mobilisation mm. yow kañ la ñu mën a xaar investiture meeting d' investiture euh, de la grande euh, la bokk maire maire de Dakar soo xam wax dëgg mais deuxièmement bëggoo dugg ci mbiru taxawu Dakar mais sa relation ak ki nga xam ne mooy xalifa Sall. Mm. ay relation yu rafet yu cordial lu ñu bëgg a xam mooy ndax après. ces événements. Mhm. ndax déggante ngeen wala gisante ngeen. on termine sur ça. <laughs> Khalifa nag moom sa waay la. loolu nga mujj ah sama càmmiñ la ah, di wax dëgg yàlla loolu moom xam politique nag bu amee. Mm. doo ko mën a expliquer loolu moom moom rek moo ko mën a expliquer li xew. Mm. moom rek ko mën a expliquer mais nos relations humaines restent intactes. Mm. ça nag c'est la politique. mbir yi. waaw waaw déggante nañ. lan ngeen waxante tuuti rek. <laughs> loolu moom lañ ko bàyyi rek te jublu ci ci ci li ñu li ñu kii nii. il laa regretté. qui a regretté. Khalifa. ça c'est lui qui peut vous dire. Hmm. Khalifa moi en tout cas. j'étais surprise c'est tout c'est tout c'est tout ce que. c'est clair investiture bi ñu jeexal ndax Mouhamed on lui met la waaw investiture yi yu yeewi askan yi nga waaw yéen seen bos kañ la. ak mobilisation bi ndax ah, tiitalu leen waaw yaa ngi may wax de gis nañ nit ñu bari. Hmm. mais xam nga gis nit ñu bari rek taxul nga ne kookoo ëpp mbooloo. Hmm. xam nga man dew ma ci coalition man benn parti laa laa dem ñu porter sama candidature. union citoyenne la pourquoi j'ai choisi parce que je parle je parlerai de citoyenneté et de civisme loolu laa bëgg a gën a accentuer parce que. dama xalaat ne comportement nit ñi il faut ñu aussi ñu liggéey ci bu baax wax ak xale yi dafaat daal changer daal de comportement et de mentalité looloo tax ma dugg ci c'est clair bon malheureusement waxtu bi jeex na waaye dama ne man ci parti laa nekk mm. bon mm. mais dama lay wax rek j'ai eh. espoir et eh. je pense que bilan bi ma am bés bu ma leen ko exposé da ngeen xam ne liggéey nañ <laughs> eh, loolu am solo bëggoon nañu dugg ci euh, programme yi nga xam ne Dakar am na ko Dakar mi ngi ah. waaj ay ay kii yu bari ah ay événement yu bari rôle bi nga ci joué yëpp xëy na euh, ah. dinañ ñëwaat gën ko ah, yaatal ñun ñun Dakar on en fera une tous les forums qui vont se passer quand même ah forum de l'eau forum de l'économie sociale et solidaire forum du climat JOJ maa jëli woon drapeau ba fale <laughs> leer loolu yëpp ñu liggéey ko ñu ne ñu ah acca yéen dem leen ah, góor ñoo war a loolu du mën a ne dañuy bañ de <laughs> ñun jigéen ñi dañuy bañ jërëjëf madame le ñu di la gërëm bu baax a baax vraiment ci sa disponibilité ñuy fàttali ne euh, <laughs> candidate nga euh, candidate la à sa propre succession ci ville bu Dakar ñu di ko gërëm bu baax a baax gërëm également Ndeye Dimet ak Fatou Abdou Ndiaye ci gunge bi amoon nañu mbégte lool ci dalal ko fii ci Sen Show mbokk yi seen mission Sen Show justement dina ñëwaat ayu bés